ki ñu seeti moom mooy Fatou Sow moo ñëwaat ca beneen gox ndax wax nañ la Fatou Sow ma ngay wër ca gox yi États-Unis Atlanta fi nga xam ne nag moom mooy ca dëkk dëkkaan yi di mobiliser jigéenu Gambie bi ñu nekk ci diaspora bi pour ñu nekk au-dessus de l'actualité nañ ko dem jëliwaat moom Fatou Sow ndax ba tey ma ca actualité bi nga xam ne nag moo nekk ca presse u États-Unis di diaspora ñu seeti faatu Sow la muy fas yéene wax Yaya Jammeh ci li nga xam ne moom mooy problème ba am ca Gambie Fatou Sow dañuy jëli ma ne fii ma nekk dëkk bii moo gën a cuqa dëkk bi ma nekkoon ndax dëkk bii lu tax mu gën a cuqa fii dafa am jama maa ngi ñëw jigéenu Gambie yi la xam ne gëju nañu Gambie fukki at ak ñaar ñu wax faatu yaa tax ñu takka suñu ndiga yaa tax ñu takka suñu jom ak suñu fula fayda pour delloo si li ne mooy jom ci biir Gambie dinaa wax ba ne ngalañ wax ba xoteeku ndax lu ma ko jaral moo ko jaral dama ne because dëkk boo ci nekkee da di jubal sa ñi ñoo nekk sa citoyen ñu jubal waaye doo fi wax doo noyi amul démocratie ñun bu ñu génnee dañuy wax ba ne ngalañ la waxa dañuy wax ba xoteeku ba ne tereet xoteeku ndax Gambie dafa waroon cuqa lu tax Gàmbi munul cuqa ki tax Gàmbi waralatu cuqa Gàmbi bi mu waree cuqa du tey Gàmbi cuqoo ci bi jamonoy Daawda Jaawara Gàmbi cuqoo naa ba nga xam ne Afrique yépp Sénégal ba Mali dañu ñëw di jënd marchandise Gàmbi léegi Gàmbi munoo faa duga hmm? ndax boo taxawee wax sa bi dafa naxari ñu jàppala duga la fu lendem dañu la door ba nga xam ne yow dootoo ñemee wax ak sax turu waa moo tax fii ma nekkaat ci daka bi damay wax ba mu neex ma di wax ba mu cuqa di cuqal ba mu cuqa moo tax dinaa wax ba ne ngaleñ laa wax lan la Yaya li mu bëgga duñu ko ci bàyyi man nag yoru naa suma rajo fu ma dem dinaa fa def émission pour jigéenu Gàmbi yëpp ñu xam ne Gàmbi du daka boo xam ne dëkku caaxaan la because lan laa bëgga jigéen jigéen Gàmbi yëpp a daw nañ ñi doon jaay ak ñi doon jënd kenn ñematul dugg Gàmbi because lan la every day you sit down people people people is never known never people people and what man na people dinaa wax ba xoteeku laa wax lii ma wax lii ma wax ci daka bi ñeme mu ko wax ci daka Yaya Jammeh su ma amee occasion pour ko because dama ko wax ba mu nit ñëpp a dégg ko ndax man lenn la comme que man jigéen la maa mun a jël suma lamin bi di wax di wax di wax ba ne ngalañ ana ñi ana góoru Gambie ne kon ñun Gambien yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi dañuy wax ba xoteeku wax ba wax ngalañ la yow a bàyyi yaay jàmm dama lay xamal man duma gendarme Gambie man mbokku yaay jàmme la métier métal la biir parti